dimanche 13 juin 2021 Jam Production andeeti na lu rëy jamaïcain borom Jam Production le plus jeune promoteur de la Sénégam drapeau sargal monsieur le ministre Youssou Ndour dimanche la fukki fan ñett ci weeru juin atum ci Independence Stadium of Bakau ca Gambie lay xewee légat man bu ma déggee sax ñu naan moo fi të tiki man daf may jaaxal waaw suma force combat mooy suma diggante ak mm, bébé ma daan ko et eh, pas que fi daan waaw nit tam boo bu baax a leket sa sul de dañ koo posé lii lu mënta ñàkk la bàyyi force dañoo war a man ak moom man ak moom ñoo fi sës. billahi ñeme naa ko waat toog nii di koy jàngal kele di koy jàngal bëre. am production teg ci cadeau bu neex première face à face combat Baye Mandione xoyantaan xew-xew bangok dimanche le 13 juin 2021 ak Jam production lii neex neex na ba pare. ay ca jërëjëf mbokk yi ba tey Lutte TV lañ ci àndal ci biir Gambia ñu ñëwaat ci ki nga xamante ni tey ndaanaan ni làmb la buñ leen ndongo Cissé xel dana dem ci làmb rawatina Kunkujang muy def lu am solo ci li nga xamante ni moom mooy làmb di génne xaalisam di ko invest ci ndaw ñi jam promotion delloo ko njukkal ci Ondy tattin bi nga xamante ni ñu ngi koy waaj Independence Stadium ñu tuddee ko ci flag bu am solo muy combat bi nga xamante ni tey dañ seet lim gën a bëgg ci làmb jam tëgg combat boobu ne moom laa koy njukkale muy combat ruuf diggante Balla bu Ñaamena ak Gaynde père maa ngi lay jaare bu baax a baax. waaw sëñ bi maa ngi delloo siyaar eh, maa ngi nuyu eh, askanu làmb yëpp. di gërëm nag télé bi moom Lutte TV bi sama télé la man. sa télé la waaw. waaw Lutte bi moom. Mhm. sama télé la. Mhm. maa nuyu seen boss di nuyu ñoom Lamine. Mhm. di nuyu gars yi Dakar yëpp daal képp kuy si daan Lutte bi di si bëgg rek maa ngi bëgg si yow. Euh, Jam Promotion doon xale si làmb am li nga xamante ne tey ay image yu am solo la yi nga xamante ni tey foog naa ne boo koy seet rek di nga xamante ni mu ngi jëmmal làmb tey ñu gis na bii mooy taat édition am ñu gis na jël na ci drapeau tuddee la ko ci ban yëg-yëg nga ci am. waaw lu mooy kontaan parce que xam naa ne yàgg nañ ma koy bëgg a tuddee nag mm-hmm. waaye Diam's laa ko nangul mm-hmm. te li tax ma nangul ko ko dama ko gis si moom day xale boo xam ne ba mu ñëwee Gambia ba tey mosul maa ñàkk respect benn yoon te làmb yi ñu ma a dajee fu doow làmb sax sama kër foo naa gune yu daagu yëpp xam nañ kan mooy Diam's mm-hmm. bon Diam's nangul ko drapeau jël drapeau yi mu sigil làmb te lu ma gën a neex sama duna la ma tëggal muy lan roof benn bëri roof boo da ëppal loolu dama si bëgg trop. lim jël combat rof bi tuddee la ko. waaw loolu dama si bëgg trop dafa toog xam ne loolu mooy sa bëgg-bëgg bu ëpp ci làmb mu tuddee la ko wala yow yaa tànn rof. non moom moo xam suma bëgg-bëgg xam nga nit ku nekk soo nekkee moom bu yàggee da nga ko xam te jam si dafa ma topp depuis roof kunku jàng <laughs> yaakaar naa kunku jàng fii bëri na tey kuy wax ci rajo wala nga nekk si promoteur di dëgg làmb yaakaar naa da nga da nga da nga ñëw wàll si jàmm si waa jàmm si foo naa kunkujang bu la waxee kunkujang lépp mën na la ko leeralal. dafa mbapat lamb dafa mbapat waaw lamb moom fii. suñ Gambie fii daf ko mbapat Sénégal daf ko mbapat. bon mu nekk doomi Sénégambia waaw. na drapeau bi tuddee ko dégg nañ sa wax ngeen ne musul koo musuloo koo nangul nit lan la la jiiñ tey ba nga war a nangul drapeau bi. waaw dafa nekk ndaw xam ne dafa yëbbu làmb foo xam ne te man ku yëkkati ku yëkkati làmb kooku damaa bég si yow. te jam si làmb tey fu mu àgg suñu biir gàmb Gambie gii ah, lum si contre bi mopp lu bari parce que ñu bëri tëgg nañ làmb waaye comme làmbam nu mu yëkkate ko bi génn ba askan yëpp di ko xoolaan moo ko fi déparé. waaw moo tax nga nangul ko mu jox la bés boobu. waaw moo tax ma nangul ko bis boobu. ak ak jëm ak taxawaayam ci biir Lambi Gambia parce que Lambi Gambia toog na Euh, time boo xam ne ñii ñu ne dañ tëgg ñeneen duñ tëgg moom mu ñëw def ko fa. yàlla def nag xañ na lim ko bëggee woon yëpp demoon ndax doomu aadama du wut bëgg-bëggam yëpp la suñ borom di nangu. di résidal parce que dafa am loo xam ne mun naa am su àggee du la jik waaye suñ borom nu mu gënee def na ko. te dañ ko si gërëm sant ko si bu baax te kenn du taxaw ne promoteur bi moo ko def laxul ay waruwaayam yëpp def na ko foo naan làmb ji fekk am na lu fa yàqu mbër laay nekk waaye du moom waaw. ñu gis ne écurie Ndongo Cissé buñ koy wax sa jëmm a tax tey ñu gis ne combat roof lañ la tuddee kon foog naa ne tey buñ bàyyi xel bu écurie Ndongo Cissé di bëri xel day dem ci sembereng xel day dem ci bëri roof buñ la tuddee bëri roof kon mel na ni delloo nañ buum sa boy boy ga lan ngay wax mbër yi nga xamante ni tey flagam lañ jox Ndongo Cissé. waaw muy Balla ah, muy gaynde ñooñu mbëri mbëri roof lañ ñooñu roof kenn du lay wax fii nga jàpp wala fa laa ngaa jàpp parce que ñoom xam nañ ko. Eh, ndax mbëri roof ñaari bopp seen ñaari bopp yi dañu rombante mbagg yi mbagg yi dóorante mm-hmm. waaw ku ku nekk jàpp sa ngeen morom ba noo ko bëggee mm-hmm. loolu lañ xamoon ci roof mm-hmm. képp ku ko yàq nag kañ na yow da nga def sa coobare wala nga jël avance nit ñi mawloo ko waaye mbër daal boo ko ñemee bu ngeen rab da ngaa yor sa ñaari loxo tibb ba mu fees mu tibb ba mu fees sooy galgal yaa xam booy njëloo yaa xam booy fob yaa xam booy deggart yaa xam waaw booy kot yaa waaye daal jël bopp samp ko si dënd daal bëgguma ko si drapeau yi moom waaw bëree normal laa si bëgg. bëgg bëree normal. waaw bëgg ngay jël am ci. jël bu seet wecc laa si bëgg. Mhm. bu seet wecc waaye bëgg naa nag ñu bëree tuuti waaye dem rek roof rek di daanaante moom. Ah. déedéet bëgg naa ñu dem ba nit ñi. kii ekkati moromam kii sukk waaw waaw ñu ekkati wante ba stade bi yëpp jog taxaw. Mhm. ñu doog a daane wante waaw loolu moo neexal làmb mhm. waaye fir bi mu neexut looy wax ñi nga xamante ne tey bés boobu dañ koy jàpp ne seen bés la ndax kóllëre guñ seex ak Ndongo Cissé ngir ñu war lay gunge si eh, képp eh, ñëpp képp koo xam ne Ndongo Cissé ngay bigee dama laa woo si bis boobu nga ñëw te lu war sa bis boobu bu sama yàlla dinaañ ko def loo xam ne mosuma ko def si lambi Gambie ñu fi yàlla bàyyee buñ fekkee ko dinaa ko def ci bés boobu waaw bu soob yàlla loolu maa ko promis askan wi. am na li ma bëgg na yokkal ma ko si ndax bés bi bés bu rëy la ñaari ndaanaan war si sëgg bëree grand combat muy France ak Leket sa jàngat ci combat boobu. waaye ndeysaan waaw de combat boobu moom foo naa am na ñu bëri ñu ngi dagg ticket di ñëw. pour si raan si làmb boobu. te làmb boobu xam naa ne ku ko tardé ku ko ku ko tardé ku ne tardé lu rëy. Mhm. parce que ñaari champion la te yàgg tëkkuwante. Mhm. xam nga. daan naa la daanu wala ñuy tegwante yaakaar naa bu bis ba jotee kenn ku ñëw bu ñëwee da nga dëggal sa bopp. waaw loolu daal loolu daal am na yaakaar combat bi war te yàgg te du nii loolu moom am nañ si yaakaar bu baax. dafa am benn ndaana nekk écurie Ndongo Cissé muy xoyantaan. waaw dajeeg France dajeeg leket kon foog naa ne ñoom ñaar xam nga leen ku si nekk lan moo ko arrangé on di tattin. waaw parce que xam nga <laughs> xam nga France <laughs> point ñu ne mboor la mm-hmm. leket eh, day faaxaat. dégg nañ ne lu mu jàpp waaw day fàqat te bu la fàqalee boo wee mu wër la ndomba France mboot kat la moo tax ñoom ñaar seen bëree li si waay prédit rek mën nga ko ñàkk te ku si naago itam da nga daanu puisque kii fàqat mën na laa fàqat nga jàll mu wër la ndomba yow muy mbootkat bi mën nga mën ngaa depexe noo si génne wala man koy mboot si kaw nu mu la waree ndomba noonu. waaw kay foo soo amul garaaray ba daal bul yaakaar naa am nga ndam. waaw looy wax ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo war a wuyu si on di dit Tattine Jamaïcain Independence Stadium ndax gis nañ ne làmb ji àdduna koy waaj te foog nga lancer message ñu war a ñëw. waaw li ma leen di lancer message mooy ku ñëw nañ xam ne mbëri ñoom ñoo ñu war a xeex ci bu leen arbitre ah te buñ duggee ci biir géew ba pare waaye ku mooy mbër ku ne supporter Leket ngay support France ngay support Balla Niamé ngay support ku koy mën a support ku ne soo ñëwee solul ba jekk. nga lekk ba suur solo ba njëkk jël sa butéel ndox téye wala sa drink si ñëw toog si kaw aju di yee sa ci ko am bëñ waaw. loolu la ko amut bëñ moom xanaa mu mu mu jël minti Balla Gaye macc waaw. li tax nga tax ma minti Balla Gaye. waaw xam nga kooku mooy koo xam ne tey ku wax si làmb te waxuloo si moom waxuloo dëgg. waaw parce que gune la koo xam ne tey eh, bëri na ñu ko jur sax am na si làmb ñoo xam ne ñoo ñaamuñ ko. bon kooku ku wax si làmb ba jeex te waxuloo si Balla rek bon waxuloo si làmb ah. am na solo ah, bu dee am na lu nekk ci yow loo xam ne bëggoon nga koo wax te aw laaj la ko lan ngay doon muy sa kàddu goo xam ne danga koy tëjaalee rek. waaw li ma bëgg a wax ci loo xam ne xëy na laajuloo ma ko mooy damay ñaan yàlla làmb ji fuñ si séntu si neex yàlla ko yàlla kawale. te yàlla defal ci si promoteur bi ak ñun ñu tuddee drapeau yàlla ma ñu ndam man mi nga xam ne mosu ma tuddee drapeau ñu tuddee ma drapo ma ñëw si géew ba man nga ñaan yàlla combat yëpp yàlla àgg si jàmm te yàlla bu si lenn lu leen am te lamb ji yàlla na neex yàlla na réussir borom moom gis si seen boppam mbëri yëpp gis si seen bopp waaw loolu rek laa ñaan yàlla di ñaan yàlla itam nag eh, na mbëri nañ xam ne ku si daanoo tey daanoon nga démb. Mm-hmm. ku si daan nga xam boo yow yaa daan buñ la daanoo demal nga ñibbi sangul ba set dem ñibbi nga xam ne noobul nga parce que itam supporter di jóg fële di xeex loolu bëgguma ko li ma bëgg mooy ñaari mbër daal su rafetlu fuufee suñu duggee ci biir géew bi ku daanu tëddal jog ek xuk sa morom xam ne mu daanoon nga démb keneen te ki nga daanoon tuut da nga ko gën suñ borom moo la may ndam may kii ndam tey. soo waaw kay loolu rek laa bëgg nag si lamb ji. Mm-hmm. loolu daal bëgg naa ko nañ ko def lamb joo xam ne daal lamb noobul laay nekk. Mm-hmm. lamb joo xam ne kuy dem da ngay sol sa ñetti abdu wala nga sol sa ñaari morso yu jekk. Mm-hmm. waaw boo amee koy dendat ba te yëbwaale waaw loolu dara yàqul ko. waaw jërë ngeen jëf non ligti bi maa ngi suñ boos. kii naka buks naka du buks non kii boosi Lamine. bés waaw parce que toujours dama lay seet mu ngi dalal gars yi waaw te moom itam nit la ko xam ne ku xam làmb la te day dalaa déglu ngay wax ligti bi eh, simple bi ligti bi rek moo ma koy wan simple bi sàll bi parce que moo tax su ngeen demee simple rek sama xol daay bi mooy sama sama wétal guddi mooy sama wétal rek sama connexion bi foo ko seetee ligti bi laay seetaan ci simple bi rek ah ak si làmb yu passé waaye maa ngi kontaan di la ñaanal yàlla na nekk yàlla toog ba nekk ay télé télé télé ci biir Sénégal yàlla musal ko si pexe noonu yéen bañ musal leen si yéen ñëpp nag képp kuy bigee lëkk bi rek yàlla na la ci yàlla musal. ba pare di lancer message ne Sénégal ak Gambie benn la bu si kenn andi lu yàq parce que ñun ñun suñ xamee làmb bëree dóor Sénégal a tax. ku ko nanguwut xamuloo lan looy wax lamb bëree door suñ ko xamee Sénégal la lamb bu nekkee Gambie sax waa Sénégal mooy yëbbu lamb boo xam ne ñun mënaguñ ko faa yëbbu jam si nag mu ngi see dox tànk pour yëbbu lamb Gambie mu dem fu Sénégal nekk ak yeneen promoteurs yu nekk fii waa ñu ngi ñaanal ñëpp kenn ku si na loo si bëgg si lu ba yàlla na la ko suñu borom àggalal di jaa sëriñ bu jot tànk yow jërëjëf jërëjëf Ndongo Cissé la dégg nga kàddu yu am solo yi nga xamante ni gaaral na ko ci li nga xamante ni tey Jam Promotion moom moo ko ñëw tuddee ko bés bu am solo jooju niki on di tattin mu ñu koy wàcc loolu dimanche la na ko ñëpp xaar. Lutte TV la roi des arènes lañ am tey ku ne xam ko ku ko xam-xam kook Ndongo Cissé muy tête de file bu écrit Ndongo Cissé buñ jëlee Ndongo Cissé tuddee ko drapeau bi baax na kon nga yëy si yàb bi maa ngi lay ziare bu baax a baax. alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di gërëm waa axlu lamb yëpp di nuy suma sëriñ di ko ñaanal eh, yàlla xare ko àjjana bu wér yóbbu ko ci àjjana ca gën a kawe di leen nuyu yéen ñëpp. ñu jël ki nga xamante ni tey moom mooy sa président écurie tuddee ko li nga xamante ni moom mooy flag bi muy écurie Ndongo sa tey boo amoon li nga xamante ni di ko si eh, sànni tey ci drapeau bi nga xamante ni jàmm moo ko delloo njukkal boobu lan nga ci wax. waaw di sant yàlla rek ndax euh, ku yàgg ci teen ku ne baag fekk la ci mu nekk nag mbañeel bu ñu nangu ndax euh, ay nit ñu bari ñëw jaar nañ fi bëgg ko tuddee drapeau mu bañ moo tax keroog ba ma wooyee wax ma dañ ma tuddee drapeau Jamaïcain jël naa drapeau Jamaïcain lii rek moom mënoon a tax ma d'accord ne jël na ko waaw ndax euh, du mbeteel Ousmane Diop mi xam na si dara ay niti niti ñëw nañ fi li tax mu jël ko nag moo ko xam. Euh, te li tax kii tuddee ko drapeau moo ko xam waaye yal yàlla matal ndax jaam moom mën nga am yéene rek waaye man mën naa bañ a am waaye yal na yàlla matal lépp lép loo xam ne promoteur bi mébét na ko ci moom it mébét na ko ci pour jël ko yal na yàlla sottal yëpp ci barke alxuraani karim ndax oto bi boo génnewoon tànk yi du dem fenn kon ñun tànk lañ bu ñu ndong ndongo kay xam nga ne dañ wuyu ji. kon daal mel na ni boobu moom xoyantaan ay jiite sa kanam. ah bu mu jiituwul ci kanam bi danaa ne ci digg bi de. sa diggante sa digganteeg Baye Mandione Jam Production indi ko loo ma si sànni waaw <laughs> di sant yàlla rek. nga seen amoon na fi dogal sa wee ko yàqoon. waaw am nga bii du Sénégal bi bi Sénégal la. am nga ñu ngi ñaan yàlla nag defal ñu jàmm ñun ñëpp. ñëpp laa wax muy mbër ak supporter ak amateur ak ñëpp buñ ca àggee yàlla matal ko mu yegg ci jàmm man damaa gëm ne combat boobu man naa mooy dàq ci combat saison bi. bii gëmal ne dog sa wee du ko yàq de. non bi bi amul dara lu ko war a mën a yàq ndax lu ñuy teg man lañ koy teg te man lu ñu tegee ma nangu. Uh-huh. ndax dafa am fu ma dafa am fu ma jógee. Uh-huh. léegi nag bu ma fu ma jógee am fu ma jëm. Uh-huh. lu ñuy teg man lañ koy teg te lu ñu tegee damay nangu. baax na jërëjëf. jaajëf xoyantaan la loolu mooy jàngatam ci drapeau Ndongo Cissé mbokk yi Lutte TV ngeen si àndaloon jërë ngeen jëf. ayca Lutte TV la ba tey. ki nga xamante ni moom mooy jam production jamekin bu xarañ bu jëlee li nga xamante ni moom mooy flagam bu dox ci diggante ki nga xam ne moom mooy dollima ak étoile tuddee ko ki nga xamante ni tey moom mooy waa xarañ famille delloo na buum sa booy booy ba tey président bi nekkul fi waaye am na vice président bi ngir waxtaan ak ñoom lan la ñuy waajee on di tattin soxna si maa ngi lay jaare bu baax a baax. maa lay fay sëñ bi bu baax a baax. tur bi. Aysatu Ñang. Aysatu Mhm. doon vice président bu xarañ famille. waa loolu de am na. Jamaïcain ñëw jël njukkal ju bari ne dama koy delloo waa xarañ famille yi ban yëg-yëg ngeen am ci loolu gannaaw ba nga xamante ni tey yow yaa fi teewal président bi. waaw di kontaan rek ndax xarañ famille moom dañoo bokk ci làmbu Gambia. Mhm. kenn du def dara te duñ ci boole. waaw tey suñ président moo ko waroon a jël. Mhm. tey dafa am dëj moo tax. te président bu fi nekkul nag vice moo war a taxaw. waaw di kontaan rek comme ni ñu ko Jamaïcain joxee rek Jamaïcain dafa bokk si ñun. tax mu jox ñu drapeau bi dañ koy nangu di ci kontaan bu baaxa baax di ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci bés beeg jàmm. Mhm. ñu def li ci war yëpp. bés boobu naka ngeen ko waajee ngir ñëw ànd def benn mobilisation bu am solo ñëw ngir teewale Jamaïcain bésam. waaw waaj ko comme nuñ ko daan waajee rek mhm. ndax ñun moom xew-xew moom du ci ñun. Mhm. rawatina bii nag. waaw dinañ teew dinañ def niñ daan defee rek waaw li ñeex. di ngeen dooleel bés bi. waaw eh, incha allah jox bés bi ay ayca loolu mooy li nga xamante ni kàddu vice président la muy ay Aysatu Ñang euh, maanaam say message moom jeex na ci bés bi nga xamante ni. jamee kee gaay rek li leen wax jam daal dañoo tuddee drapeau. waa di jaale waale Pape suñ mag jooju noonu. di ko wax yàlla na ko yàlla yërëm taxare ko àjjana. kim deele waa kim deele mhm. dafa am dëj. magam moo génn àdduna waaw di ko ko jaale bu baax a baax suñ président bi mm-hmm. di ko wax lu metti moom jullit rek lay dal yàlla na fi géej daal jaajëf loolu mooy li nga xamante ni kaddu vice président production le plus jeune promoteur de la Sénégal drapeau sargal monsieur le ministre Youssou dimanche la fukki fan ñett ci weeru juin atum ci Independence Stadium of Bakau ca Gambie lay xewee légat man bu ma déggee sax ñu naan moo fi tëkki man daf may jaaxal waaw suma force combat mooy suma diggante ak mm, bébé sos ma daan ko et pas kese la fi daan waaw a tam boo ko doo ko topp BMSS nit moom boo ko topp BMSS moom xamal baax a baax a baax légat sa dañ ko posé lii lu manta ñàkk la Baye Force dañoo war a bëre man ak moom man ak moom ñoo fi sës. billahi ñeme naa ko waat toog nii di koy jàngal kele di koy jàngal bëre. am production teg ci kado bu neex première face fas face combat Baye Mandione Xoyantaan xew-xew baa ngoog dimanche le 13 juin 2021 ak Jam Production lii neex neex na ba pare.